ndeysaan kon nam naa leen kon nam nam yéen samay fans yee maa ngi ni yegsi naa kon nam naa leen kon nam yéen samay fans yee maa ngi ni naa Salam alaikum ami internet yu Wanema TV Dans leen c'est une émission namm comme ngeen koy dégg saa su nekk rek namm naa la dafay seeti euh, ñi nga ne da ngeen leen ñu alors tey on a le plaisir d'accueillir koo xamante il fait partie de l'un des meilleurs voix de la musique sénégalaise en tout cas ken dootu que présenter fi nga xamante Mon musique du Sénégal ndaxte lan dafay aussi marque na empreinte marque na ligne nga xamante mooy empreinte am wane na ne la ndaanaan nag si biir ndaanaan ni da koy jeex ba gis ko xam nga ne ki waajee ki ma toogal nii di leen ko présenté en tout cas su yëkkatee rek di ngeen xam kooku mooy kan. waa sëñ bi maa ngi lay ziar di leen nuyu di wax Wanema TV yal na dem ba doon tele bu mag doon papay tele yi ak yaayu tele yi di ñaanal suma yaay fi mu tëdd yal na suuf ëf ci koom ci barke Serigne Babacar sam papa fi mu tëdd yal na suuf ëf ci koom ci barke Serigne Babacar di nuyu suma fans di nuyu suma entourage di gërëm sama staff di la nuyu. du nuyu sama caméraman bu ñaawul bi Ngoné Diop Matar si la xarit Diop Ngoné Mbengue ay jël surtout guddi Diop ak Téemu Diop maa ngi leen loolu foog na alors euh, soo ko déggee ni mu nuyoo en tout cas l'homme il s'appelle euh, Djibril Diop ah, loon ci li nga xamante ni moom moo nekkoon euh, concours xeex sibru si je me trompe pas année 2010. Ah, voilà mu nekk nag année boo xamante ne ni marqué woon na Sénégalais waaye moom tamit année bu ko marqué lay doon alors Djibril tey soo jàkkaarloog internautes yi lay bàyyi xel à travers Rondema TV bu ñëwee si ay début kan mooy Djibril Diop. waa jibil do doomu lebu la di lebu fukki penc ak ñaar ah di sëtu Serigne Touba di sëtu Seydi Hadji Malick di sëtu Seyna Limaamu sama mam yëpp doon ay alim yalla xirma ma ci way ma doon wayantu ay si mbapat bi ma daan way ay si mbapat tok aw ma mam ju way aw ma papa ju way ben rapper bu nan MC ñu and studio lay jaan ñu def featuring morceau bu genn def bëm benen rapper bu nan Demba Sebor wa man rew kelen ñoom tamit moom tamit muy def euh, benn albumam ma ñëw way si Mat Pape Birahim après ci la affaire bi commencé def ni ma toog benn jour ñu ne Youssou Ndour dafa organiser concours xeex si biiru sama benn xarit bu naan libaas mbub ndeysaan may ma cinquante mille boobu maa ngi dëkk Thiaroye sur Mer mhm. ma jël cinquante mille di dox def sama poste doxee Thiaroye géej ba fajaa ñëw studio lay jaañ jox ko cinquante mille yi mu defar ma ci benn morceau morceau boobu moo gagné concours xeex si biiru Youssou mhm. mu nekkoon mille artistes yàlla def ma ci ma gagné ko ñu ne ko ku gagné da ngay def album da ngay dem tournée internationale ma dem tournée internationale foog ñu damay dem ñëw ñu téye ma fa xarit ñoom Youssou Ndour ñoom Sega Bass ñu mhm. jëli comme fii

bi may gagné loolu am na artistes yi ma ko bokkaloon ñoom def nañ ay single ñëpp xam leen bi ñëwee ci stade bi da ngay gis sa nit ñi dañuy daw di leen song ñu di kottante ak ñoom di photo ak ñoom kenn xamuma mais talent dafa gënoon kalan te kalan day dem bàyyi fi talent te boobu yàlla def na ñu tarbu ci mbappati ba suñu voix yu xor boobu pour taxawoon wa wañ ngelaw bu rombee sax dinañ ko way gars yi bi nii ñii di dix car man man di benn car <laughs> ay jigéen ñu sëy ba tas ñoo ci nekk ay xale yu ndaw matu sax vingt personnes mhm. ndekete suñu borom mooy def lu ko neex ma ñëw mu may ma mu may ma mu may ma ndam li ma jóge fa demaat ñu ñu boolewaat ma ak Youssou Ndour ñu def diwo ma samba ci ànd. année 2011. année 2011 xeex si bu concours xeex si bu 2011 boo def boo defee Youssou Ndour di jóg di nga seetaan sama clip. maa ngi mhm. après nag c'est la commencé bi ma jógee Bercy bu Ndour ne ma. Euh, le 27 septembre ki kiwam ooma secrétaire bu nan moo Mouana Mouana mhm. ne ma oh, ne ma ne dañuy ñëw enregistré si <laughs> album ma jóge ma fekk ma géej ma ñëw toog sama yaay di jooy ma ne ko yaay ku doon woy ay simbak mbapat ñu ne la tey da ngay dem prési mhm, art mhm. pour def album mu nekk lu rëy mu nekk lu rëy mu ne ma li ngay def day law ne naaju te loo génn nit ñi bëgg ko ndeysaan bi ma ñëwee album artiste mi ngi def studio ay 3 mois barki Seydou Mouhamed 7 morceaux ci ben jour laa ko def. ma dugg studio 9h30 presse art minuit et demi ma pare. nga def 7 morceaux yëpp morceaux yu pare. alors euh, xam nga foofu noonu macha allah parce que euh, jibril année boobu man je me souviens bien maa ngi fa lu ci mel bi ngay ñew def ben prestation tiosan ak euh, si je me trompe pas stade bu. Rufisque bi Ngalandou Diouf. boobu maa ngi fa fekk Viviane moo doon jouer sax partie alors jibril se voit nekkoon lo xamanteni ni dafa impressionner Sénégalais pour une première fois nga yegg si concert bu doy non mm-hmm. jibril nga way rek deret ndaanaan yëpp daanu jibril lan moo doon secret bi réellement. waaw secret bi mooy hygiène de vie dafa baax te te tamit ndaanaan jaan bu ndaw bu loolu bu génnee ñàngoor lañ koy wax. Mhm. te xam nga tey soo doxee woon ba xiif ñu tegal la sa plat préféré da koy lekk. da nga koy lekk mhm. man musique mooy suma plat préféré dafa nekk si yow sa dama ko bëgg dama ko gëm. <laughs> Euh. dama ko gëm xam nga ma am ci ay opportunité yu bari. Mhm. ay kilifa yu mag ay ay ay. surtout Serigne tubaa démb rek lañ ma jox Serigne Mbacke Madina. ndeysaan mu doomu sëñ Abdourahman Abdourahman. Mhm. mu ne ma sa way du ma déglu musique mais mi ngi sam portable soxna may galas mu sëñ Fallou surtout sëñ naa limaam yi nga dem Tiwaawoon muy noonu. ndeysaan xam nga imam jàkk julli jàkk ba génne dajeeg man ne ma sama doom. du ñu déglu musique mais li ngay def. li ngay def dafa ne parce que day dugg su xol suñu yemee coow duñ zappé kon sant quoi mais nag sénégalais dañuy xool buzz te xam nga man ma buzz man dama. dama bëgg lu ma génne rek mu doon qualité ma am disque d'or disque d'or laa bëgg ci kattan ndeysaan yàlla na la ko yàlla may parce que tamit ki nga xamante nii euh, moom mooy euh, roi du mbalax au Sénégal euh, Youssou Ndour maanaam en bi ngeen paree li nga xamante ne ni mooy featuring Massamba bi ngeen ko defee moom mu yëkkati ay kàddu ne gagné woko ci li nga ni mom ni euh euh, euh nuñ koy waxeeti way yëkëti ay wax daal di wax si jibril kani ni mhm. du doon ko faral du dan and ak mom mais da ko gagné ci talent mm, tay jibril euh, bari na fi ay ndaanaan yu bëgg diiw ak wala ño xamanteni tamit buñ soñoon tay ñu def ak mom mhm. yow nga am occasion def ak ki nga xamanteni mom moy roi du mbalax au Sénégal Youssou Ndour mhm. diiw bobu non ko défé lan la jibril yëk wa pare mu ne ma euh sumarak ma ko ma décourage len rek la lay sante mo dess te lam mo waxoon batay fi lay tek sama tank mhm. du ko nuyu mom tamit mu taxaw senegal Sénégal way kat mu tamu ma sene way katam la parce que kon alhamdulilahi rabbil alamin di ko di gërëm bu Ndour aussi tamit mom mi nga xamanteni da no dem Bercy ce demi boy Mbaye gefe di deug sen Denis fekk bima ma Youssou yegale Bercy ma ma ma yalla sutural ma dal ñep apprécier Bercy tas mhm. artiste yi car bi yi dem. tubaab yi taxaw ma leen di signer orthographe car bi yóbbu apis yi dem <laughs> ma réer biir Paris 24 heures sur 24 waa jun naan war ka jaañ London mhm. moom ma for yóbbuwaat ma hôtel Ibis bi ma ñëwee béggee fee war kër gi seen denis ma sonn na du ma dem mhm. mba sundu bu bubandur ne ma jibril len da la ko mu ne ma lan mu ne ma ar opportunité la mhm. su ne këm-këm bu fa fekk dal ni dañu romb set leneen mhm. man ko man jóg heure boo leen fëggee ci man yalla na ngeen fa fekk leneen wa mu doon lu reuy ci man kuñ way ba wooyee ndog yu sundu mu ne la ku doon wër ndaandaan ndaandaan su yemon sax neex na voilà mais nak jibril nak da nga impressioné won sénégalais ya ah, ma sha allah parce que voix bi mom ma sha allah tamit nga ñew euh, genn ci titre bo xamanteni mam maam limaamu alayhi wa salam alors mu mu nekk titre boo xamante ne nii dafa marqué sénégalais yi te it ku la si dégg day xam ne lii. ndaanaa na ko way ndeysaan euh, bi xaaroon nga ko. waa euh, parce que dama tëdd sama kër ndeysaan Thione Seck way maam li maam Yves Niang way maam li maam. Assane Ndiaye waay mbay. Ndongolor way na ko aussi. Ndongolor way ko ma mhm. tëdd sama néeg toog sama soxna ma ne ko jéeg mu ne ma naam ma ne ko est-ce xam ne su ma woowee Seydina keneen doon ko way <laughs> mu ne ma lu wax nga ko. mu ne ko dama dama dama dama bëgg laay li muy def. te boo ko da ngay gëstu seen tonalité seen voix fi mu koy teg nga mhm. gëstu ko. Mhm. mu ne maa ma commencé na ko déglu ma toog ci xam nga mën na ban bu yàqoo da nga koy dëpp mu doon ban. Mhm. ma toog ci ban bi di ko gérer mu ne ma lii neex na de. après bi mu génnee nag ci biir succès bi ci laa feebare. ndeysaan ba paralysé mënatuma dox. su ma yoree cent franc dañ ma ko may. looy wax nii. barki Seydouna Mohamed. ah mais attends moment boobu noonu yow yaa ngi si euh, maanaam euh, fi nga nekkoon muy côté euh, famille Ndourène bi wala. maa ngi woon ak watawat ak Bouba Ndour. waaw watawat et c'est vrai c'est vrai sax foofu noonu suñ fa si biir bi amoon na ay ay ay ay wax yu bari yu daan dégg comme quoi gagnant bi dina am lii ba am sax ay featuring su mel nag Viviane waroon nga mën a def ak moom featuring quoi. waaw waxoon nañ loolu. waaw loolu fu mu mais mais mag yu sundur rek ñoo def te et puis tamit sama album génnoon ko trois morceaux lañ ci génne. mais tamit sant suñu borom amaana bu génnoon ci jamono yooyu su asamaan si dee taxaw su ma nee nii dama naan dama yaakaar ne mu taxaw te boobu tamit fekkoon na du ma mën a gérer succès bi mais loxo li ci jóge li ëpp a des. est que du cata la coob toog foofu. mais tey laa ko <laughs> tey laa gën dafa am lu may wax quoi <laughs> ci kattalu yàlla. Uh-huh. musique sa ay nar la ay saamu yàlla la uh-huh. dama war a jël sama saam. kattanu yàlla dama ko war a jël te maa ngi koy dagaan suñu borom juru kente kenn juru ko yàlla na ma ko jox tey expérience bi yokku na fi technique bi yokku na fi màgg nañ doon nañ fi beneen nit lépp lu mu defoon taar ma taar macha allah ñu tey la gën a yokk ci kattanu suñu borom xam nga am na ñoo ñoom suñu wayee ren ñëw wayaat nii da nga naan kii voix bi nekkatu voix bi nekkatu fii te macha allah on a euh, chaque jour jibil bu yuuxu rek même voix bi la ñuy dégg waaw loolu loolu loolu dañoo gàttal suñu tànk xam ñu war a composer xam nga maanaam kuy def lu la jox nga lekk bu yàggee da ngay fot mhm. ñu toog suñu ruq tudd jibin rek la jóg di concentré wu di ñaan yàlla lu mu génn rek àdduna bi bëgg ko man dama ñaan yàlla lu ma génn rek ku ko ñi toog na gonga tey bu ñu sundur doon teg lengay wala Thione teg lengay wala Baba Maal wala Ismaïla Lo ñu ne dañuy tànn dix yu war a yor musique Sénégal ëllëg su un deuxième ba doon Djibril Diop mhm. loolu lay ñaan ndeysaan alors euh, sànq rek yaa ngi fu am solo nga wax lu yéeme ah muy que ni euh, da nga feebaroon ba xaw fi paralysé mhm, bu ndikkee si feebar boobu noonu mhm. exactement loolu ndax ñoom soutenir nañ leen si wala non parce que feebar moom dama ko doon nëbb <laughs> la affaire bi Daniel heure yi net ma dugg Cambérène fekk fa benn way mu ne ma di du bax ba ca top lu bax ba ca top lu bax ci feebar bi. mais ba ca top leneen la ni wax ci bi 14 h 30 la ram ba jengu ubi sama buntu keur pel fuuta yi ma jakalo ñoo ñoo ambulance ñu yëpp ma ci yobuma hôpital. allahu akbar ñu samp ma ay quatorze heures et demie sër Ousseynou lay ànd ak sëñ Fallou Mbacke te dee nañ bu yàgg est-ce que ubbi buntu hôpital bi fekk ma fa wax ma lañ may wax barki alxuraanul karim rawal rawal <laughs> bu fekkee li may wax ay sos sa sama mbaat yàlla bu mu jógati allahu akbar Chérif ubbi bunt bi ne ma Jibril ma ne ko naam mu ne ma man docteur de la jeunesse ngooy ma lu rëy li di tëdd du feebar du luy nekk gëstu xool sëñ Fallou Mbacke ne ko Mbacke Mbàllaay sa dama dindil ne ci moom est-ce que waaw boobu moom mooy def di dindi moom moo sañ li moom lépp ndeysaan alors febar bobu non jibil euh, da nga jàppoon ni lu def la wala ndogalu suñu borom la. wa est-ce que suñu borom mag ñi neen yalla bu la tege febar amna lu ci nara top topp. Hmm. metti won na lol sama yu bari duma ma duma am 100 francs yu ma def sama poos libaas mbub bi may setsi bobu boobu Cheikh la bi mi ñew ci hôpital mi ngi sol lu weex libaas mbub bi mu ko déggee and ak ñaari soxna ñew sama kër di ma seet mi hmm. ngi yor tisi bu wex na ma lii mooy sa te bëss bi mu yemee ci man da doon joy yépp ma ci auto na ma fi da fi sonu nañ dem ci hôpital bi ma fii. Mhm. ak Seydouna Mohamed sant rek sant rek. ah yàlla na sant gën a yàgg baax sant rek <laughs> en tout cas ñun ñun ñun ñun loolu la ñuy souhaité ah, lay ñaanal parce que euh, xam na ni am nga voix. te it xam na ni ndaanaan nga te musique bi am nga si place donc loolu nga si bëgg rek yàlla na la ko suñ borom mottali ba nga yegg seeg jàmm parce que tamit ndaanaan la tey on est au Sénégal il faut que ñu koy wax suñu gisee ñi nga xamante ne nii ay ndaanaan la ñu leen di dooleel di leen jàppale parce que yéen yéenay jëmale culture Sénégal sa kanam alors Djibril tey euh, soo xoolee Djibril Diop si musique bi absence bi tamit yàgg na Djibril yaa ngi Prince Art ba léegi wala da nga leen woon gannaaw non parce que parce que nekkuma man buuba laa doon liggéeyal bi ma toogee nag diir may ko lu mat deux ans. Mhm. pour sama kii génnul pour sama album génnul. Mhm. dama demaat studio Laye Diagne di liggéey ak Laye Diagne muy LSD rek. Mhm. bi ma ñëwee ji job ak Laye Diagne def deux morceaux benn sëtu sëy naa moom bu naan Serigne Assane Gueye fekk ma fa renforcer morceaux yi. ne ma dafa am ku ma lay doon ma ne ko man maa ngi doon liggéey ak Laye mu ñëw yokk morceaux yi ma génn ci Saliou Ndiol génn ci Demaraay. waa ñaar yooyu laa ci génne te mu ngi daw ci télé bi. Mhm. de Saalum Dior mooy hommage euh, lébu bi. waaw mooy hommage mhm. lébu titre bu neex sax. waaw mhm. boobu ma way ko ci saalu Dior tamit oo ma ba yéen teral ma. ndeysaan moom it muy ku baax jox ma ay millions yu bari. barke Seydina Mouhamed ma ànd seeg sama gars yi ñoom waaju baax gunge ma accompagné ma ma dem xam kon lépp sant rek mooy li ma la wax rek maam li ma am 2011 laa ko yor ba tey ci laay dund.

lan moo xew réellement. dara xewul buuba wëriw ko pour mu produire ma. moom moo la wër. wër siw ma ne ma kaay ma <laughs> produire. concours la muy mille sama talent ñoo ma gagné ko mu doon nit ku baax. barki yónnante bi. golo loo ko bëgg bëgg nangul ni moo fi gën a ñaaw. loo ko bañ bañ ni nangul ni moo fi dàq tëb. moo fi dàq yee. muy sama mag di sama lépp. sañ sa bu génn mu jox ma tabaski bu jotee moom foo nekk. jox ma ne ma demal ci nduxar tabaski. cat la est ce que xam nga morso maam li maamu. témoin yi ñu répété mom lañu génne ni barki def mu kunduroo ko def ni may déglu. moom mo composé mo defar son morceau bi. ma ko doy ba pare ak nonu ak témoin yi xëy ci suba gi mu naa owaat ma pour ñu dem studio ma dugalaat voix yi def prise de voix bu ndur na li jaratul len bu ba taxaw ne ça c'est jamais vu cat problème c'est mal te musique man dama ñëwoon rek dugg ci nonu ah mais ci li gaay soru da nga sagan kon non du sagan rasulillahi dafa am ku takk téere mhm. mu ñëw ci moom mu ne ko téere bi duma ma dee ci accident yonente bi ne ko inzi an la tazidu law mittawahi alayka ma la abadan soo deewee téere nekk ci ñu téere bi doo lab géej doo dee accident même bu ñu ko tekkee boo dee yàlla lakkal hmm? mais rasulillahi sax xaatim jàpp na ko mhm. te boobu dama ñëwoon rek maanaam lu xol bi ma foog ni li nekk sama xol moo nekk ci xol lu népp mhm. mais feebar fàqal na ma ni fa am na ñu fi nekk génne 19 album te kenn xamu leen. te man bi may génnee sama sama kii ku woyu mbëggeel woyoo sa yaay doo kii. mun ma ñu woy maam li maamu ba tey nit ñi di. waaw macha allah tey tey koo ni Jibril Diop. du ma sa xewi du ma sa xewi <laughs> du ne la kan ma woy maam la ñu ne nga wax. كون الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين داكور الوغ جبريل سي فري اوسي سا اي تيتر توجور داي نيك تيتر يو خامتيني ني دا فاي واخ سي سوسيتي بي نيك تاميت لو ام سولو لو خامتيني نيتكي سوكو ديغلو رك دا سي غيس بوبام دال ان توكا كو ديغلو سا واي ندايسان لا سي تك دابيتود كان موي كومبوزي مورسو يي يي ابو نور يي لاي جاج يي ابو مباي يا جيبي بارتو لا كون واو مي باسكو ني نيب لو سي بن سي جو barki yonent bi di len geureum di geureum yat ma cham magay sek musaa Traoré ay Jano Mendy gars yooyu. Jano ndeysaan Abdourahmane bi may jour bi may def bi may def sama album ceer bi jiyee guitare basse buy sundoo. Mhm. dafa jóg ci studio bi yëkkati xaalis may ma. ak sax que. Mhm. Bakkan Seck taxaw ne leen rek la leen sant entraînement nelaw barki yonent bi maanaam euh, euh, yoon bu amul ndog ndok rek baaxul. Mhm. te ndog-ndog bi xëy na. sunu borom ni lako ko bëggee woon. ma nak ken moma ma liggéey da danoo kaw ci nagn ko liggéey. ah mais souvent dañuy dégg artistes yi. que dañuy pécé seen voix yi man man euh, man waxuma man toog naa su ma micro damay lox duma way hmm ma joggé fi ñeu cambrène fi bi ma jógee Cambérène xabu seyna isa genn di dox di dem. Mhm. rombu benn way bu naan limaamu. Mhm. doomu baye Ibou Seyni Thiaw waxuma ko dara. dama dugg si kër gërëm mu jox joxoñ ma ne ma bés ni ki tey téye téewu baat jeex na ci jeex na si yow yëkkati biteel jox ma ne ma demal te waxuma ko dara te boobaag léegi yaa sant bu baax alhamdulilahi rabbil alamin ah, yàlla na gën a yokk <laughs> sama sang bi démb rek la ma vocal ne ma xel suñu xel ci yow la nekk te as di nga dem tournée internationale di nga dem fu ne lay maxtaar lu waaye am sa barket maam la ko amee te sa maamay rasulillahi est-ce que maa ngi lay gërëm bi la sant barke Seydina Muhammad li yombul. Mhm. ñun ay kii di way di dajale xale yu jigéen ñi. yàlla may ñu ay ay diine. Mhm. di gërëm ñëpp soxna Assa Buri Mbàkke surtout Serigne Touba moom it démb rek la ma woo. ma woy ma soo ma woyee tàkk. kon alhamdulilah ah, alhamdulilah alors mais ci bi tamit euh, si biir musique bi ah, ndax gëm nga ñiy wax ka ni musique bi gars yi artistes yi seen biir dañuy defante ay affaire loolu am na wala yow gëm nga loolu. waaw am na. Hmm? am na. sénégalais mooy bañ ko ko jiitu. bés yi àjjumaay seen njiit mhm. weeri yi weeru koor seen njiit mhm. yonent yi Seydunaa Muhammad sëriñ si sax am nañ njiit mais loolu am njiit jàkka ja kenn mooy jiite muy imam bi mais musique il faut que am ko jiitu am ka ca topp am ka ca topp am ka ca topp kaas ya wuute mais ku xëy góor kii day def kafe ak meew kii def kafe kese kii def dute kese mhm. mais nañ yéenante may jël exemple ma koy remercier fekkew ma muy muy waale xam nga ci koor gi nii ci tabaski bi. tabaski bi ay xar di ko séddale. Mhm. mais moom bu ne Youssou Ndour moom moo ci tegu moom la fi yàlla bàddul wërsëg ak bakkeem mu ngi ci loxoy sunu borom. nangul nga ko loolu. nangul naa ko ko. Mhm. parce que coon mën na mën a jur ku ku ku waale. Mhm. nday fàttu jaaga maa ngi koy nuyu moom sama xarit la. war na mën a jur doom junuy coow mu jël ci dooleem xamuñu nu mu ko amee di jënd ay xar di ko jox ñi bañ a jël ñi bañ a kii mu koy félicité man su ma ko amoon dama koy def. yàlla na ko yàlla yokk. allahumma amin man taxaw ma buntu kër kenn man sëy naa li ma teral na ma. Hmm. taxawaalu ma buntu kër kenn mais nit bu defee lu baax da koy wax wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis di ko ko wax man bu ma xamoon fa seddale séddale sax damay dem uti sa xaree de. dégg mais xanaa amu leen relation bi yéen ñaar. mais yaayam suma xarit laa. Hmm. soxnaam am na relation bi. Hmm. mais am na ay artistes yu fi nekk. tey mënoon ñu seen rak yi nek seen ginnaw ñu yaatal leen mais da ngay genn fi ben affaire artiste na la kër gi te kër gi ku ko jox douze ko mu dor lako hmm barki yonent bi. da nga dund lu mel non wala ci art bi. man dem na seenu artiste di way mu nango micro bi mu wañi euh, volume sonore. loy xam ko ban artiste la. ma ro non du ma tudd ma ro. la wala jigen mais si gor mu ne ko dar <laughs> mais artiste bu gor la wala bu jigen la. wa mais yow fi ñu gis nañ ñu nekk. mais non dama ne li ki la def loolu ndax artiste bu góor wala bu jigéen. ah jigéen ñi doon am nañu yërmande mais fii li Ndiaga Mbaye wax bu njëkkoon ndaanaan danaan gane gane di ndaanaan. di mhm. amatul. <laughs> parce que il c'est vrai que il faut que ngeen dem ba ragalante seen biir. waaw kii day way lii. Sidi mhm. ñëw way lii. nit ñëw di concurrence ak Sidi. nit ñëw di concurrence ak ñoom ñoom nag laa amal relation moo tax ma leen di tudd. Hmm, nit ñëw di concurrence ak Pape Diouf. nit ñëw di concurrence ak kii. avant ñooñu am na ñu fi xewoon. ñooñu gisatoo leen nañ raxas xol yi. lu yàlla may nit ñu yéene ko ko. ñu yéene ko ko surtout ça. lu yàlla may nit ki nañ ko ko yéenal ñaanal ko. yàlla mooy joxe wërsëg mais yàlla jox nit ko wërsëg. nga naan kii warul méritewul warul woon a am li loolu mooy samp sa ndënd naan yàlla dëkk naa la na combat bi taxaw. <laughs>

mais Fallou Dieng dafa ñàkk dafa ñàkk ki ñaan danoo daje appelu say naa mu mi xat nit ñuy dox. Mhm. may dox mu ne ma est-ce que xam nga ne yow doo ndaw. ndeysaan. jël sama numéro ñuy déggante téléphone mu invité ma si émission am Fallou dans sa voiture. Mhm. ma ñëw man sama moto day conseil. muy def les dimanches. waaw bi ma ñëwee. ñu yendu fa mu defaral ñu añ. ñu togg añ yendandoo ñoom ñëpp ak ñoom DJ Zeka may ñibbi mu jóg kër xaalis ma solal essence oto bi day conseil. Assane Ndiaye ñu daje studio Laye Diagne ak man mu bu mii mu def ba pare ne laay tegalal jibin bu ci gisee xalaatam mu ne ma doon daa naan bu ndaw ma sukk ne ko ñaanal mu ñaanal muy dëgg Alizé invité ma ma dem. jibi daraame moom séqante nañ sax ma am soxla ko ko ma dugalal ma xaalis. góor gi njaay la même chose. Mhm. Pape Diouf nee na maay way katam. Thione Seck tamit la même chose. Mhm. day day dox di day doon dem Mbuur ànd ak papis papis ooma. paas ma coon coon ne ma laay maxtaar li ngay def neex na de dama ko déglu cote bi ñëwal way ci sama projet mhm. yàlla def boobu ma am ci yu ma nekkoon mais amagoo si benn featuring ak ndaanaan yooyu non ndaanaan yooyu ama ci man dama doon wax naan bala may dee naa wayoon doog Youssou Ndour wala Thione Seck wala Kumba Gawlo Youssou Ndour Thione Seck Kumba Gawlo ah Mapenda sekk ba ci Titi ba ci Viviane ñun damay bëgg wayandoo ak moom ba ci Waly

bi ñuy wax waali dama ne leen mën a woyu waali xamagoo leen ko parce que déggagoo leen ko muy woy du yuuxu ci suuf rek lay way te li gën a jafe mooy woy ci suuf. Mm-hmm. te la ma doon wax gis nañ ko. booy mm-hmm. yu bëri danoo mën a way ay Sidi Diop ay Tarba Mbaye ñooñu danoo danoo mën a way way dafa nekk ci ñoom. ah mais ñi ngi gis euh, ay ndaanaan di wax que ni ñoom nouvelle génération boobu noonu bruit rek la ñuy def que ni defatu si musique. ndax yow am na ñuy way de bruit. daal <laughs> ci yónneent bi ñoom dañuy way. Sidi Diop dafa mën a way Wally dafa mën a way Tarba Mbaye dafa mën a way ñooñu ñoom ñëpp dañoo mën a way. ndeysaan. Mhm. dafa ñu buru de. c' Sénégal ñoo bëgg bruit ñu leen di ñu leen jox bruit mais est ce que tamit loolu du xaw a suuxal tamit euh, musique Sénégal parce que euh, suñu demee ba nga xamante ne wax dëgg yàlla yenn way yi da nga koy déglu mais euh, bon du loo wax dara ambiance nga si am fecc mais doo si jëlee benn xam-xam est ce que musique bi foofu la war a nekk. musique bi warul nek fofu parce que way bu diglewul xamlewul tuddatul way ay yeeteel ay ay naxaateel. am ah, mooy moo waral ñu ne bruit la kon. wa mais ci biir way wi amna ñoo ni bruit bi la ñuy dégg <laughs> mais déglul wayu Sidi Diop bimu mu Njaga Mbaay. Mhm. Tarba mbay wayam bimu nan li na naa wa neexe sànni. Mhm. dégg nga. Mhm. li nga nan euh, xale momin la xola way yoy de leen nani gay nani taxi bu baax baña top marimba bi lañuy ñuy gay ñi ngi way de ñi ngi way parce que nit bu mu lijjanti ay moyen mu dem ba studio. inverses yi nga koy critiquer dama seetaan interview waa bi booy Mandiaye sekk dem seeti ko. mu ne moom néegam bi bi muy fanaan. fala studio moom ta studio am ñoo taqaloo. kon bëgg kooku bëgg na li muy def. bëgg na li muy def te daf ko ñafe. te buñ ko puusee ñu ñu nga xamante ne ñàkk moyen mën na nañoo may loxo ñu jóg. Sénégal dañuy mayante loxo. Mmh. yàlla joxul kenn direct. Mmh. yàlla joxul kenn deret day jox lees lees jaaraloo ko ci man mu agsi ci yaw kon sant nañ yéenante nañ yéenante bu baax waaye nañ yéenante tey boo bu ma amul parfum nga xeeñoo parfum bu am doole su ma la wéeroo xet gi damay laal. daf lay laal yóbbaale nañ yéenante quoi yóbbaale dafa am <laughs> waaw. alors euh, mi ngi noonu alors euh, ñoom artistes si nga xamante ne ñi ngi fii euh, muy nouvelle génération bi ndax gis nga ni ñoom mën nañ yóbbu musique Sénégal fu sori am nga yaakaar si ñoom. am na ko ci mën a yóbbu sori. parce que ay xale lañ te fi ñuy waye du wayu xale xam nga nit dina doon mag di wayu wayu xale nit doon xale di wayu wayu mag dégg nga ma dégg naa la baax bi am na ñu ci accordé na mën noonu man ku mën ni mën ngaa way mën ngaa way ku kan mën na way man ku ma wax mën ngaa way mën ngaa way ndax loolu da xam way mën ko way am foo ko tey kii soxna si tey bu doon nit doon filmé léegi bu cadrement bi baaxul danaan la baaxul. fasu yàgg ki moo la gën a xam dëkk bu bari. moo la a xam dëkk bu bari. te balaag naa nag damaa way simb way mbapat way ndëpp way lépp juddoo ci tefes gi doon doomu lébu. sama maam daan dëpp may déglu way yi. Thione Seck bi ñuy njëkk a gisee si ses la awma ma paas. Oscar des vacances ma ni benn morceau. mu naan may booy Sénégal. kenn dàqu la foofu moo ma mhm. alors mais euh, c'est quoi le véritable problème parce que man euh, j'ai l'impression que ni euh, Djibril sénégalais yi ni ñu ko war a consommer dëgg dëgg dëgg consommer gunu Djibril Diop noonu waaw ah, xam nga lu mhm. musique bi léegi dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey mhm. animateur yi dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey am na ci ay baay faalu animateur am fi ay baay yaay faalu tey lees day doon waykat ma ñëw bokk ci staful stafuleuse nekk ci benn rajo. Mhm. heure bu ma xëyee damay. promouvoir euh, mhm. damay imposer damay imposer leuse adduna bi. Mhm. léegi pour nga yóbbu sa morceau ñu koy teg kay anime boo ko gereesewul du ko teg. dëgg neexul am na fi xullil xaq dëgg dafa neex Serigne Touba dani jaa al xaq ilal xaq wal xaq lil xaqil mubin dëgg dafa neex. sumay bo moko moo nit gis ci bopam duma tek mais ku def lu am qualité ñu tek la kumba am nday ak kumba am nday mo fi mais yow dund nga animateur wala animatrice euh, na la laaj la euh, ko par pour yow texas morceau sama ménager ak may seetaan mhm. laaj ko Karim doy mom daf ko noron dénoncer man invité nañ ma télé ki me ki mo war invité nañ ko jox dal pour mu invité la mom barke Seydouna hmm barke Seydouna mohammed ah mais c'est vrai parce que foofu il faut ma taxaw fi parce que euh, je pense que c'est la troisième fois may toog ak artiste muy dénoncer loolu que manam animateur et animatrice yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si ak euh, télé par parlo alors euh, animation nekkul loo xamante ni da ngay ànd kii wala ànd ak euh, ànd parce que artiste yi ñun ak ñom ñoo bokk li nga xamante ni nii euh, dañ koy def donc il faut que nak ñu gëna a xel kàddu yoy parce que tamit wax ji mi ngi gëna bari ci côté animateur ak animatrice que ñom ñoy promouvoir yene artistes yi yene alors que ndana ni ñi ngi si biir Sénégal donc lool il faut que ñoom xam ko ñu jéem ma changé loolu noonu. loolu sax ci li leen di yàqal ci lay bokk. Mhm. parce que adduna bi yëpp mënuñoo àndandoo bëgg Youssou Ndour bëgg Youssou Ndour. yàlla mi nu sàkk sa am na ñu ko bëggul. Mhm. rasulilah am na ñu ko bëggul. mais boo nekkee ci rajo. Mhm. kii fan si la am na ñoo xamante ni Youssou Ndour da leen di déranger yàlla code du seen moo leen di daaneel. ñii Michael Jackson da leen di déranger Wally sekk moo leen di daaneel. ñii Djibril Diop da leen di déranger si Diop a di daaneel. ñii Pape Diouf da leen di déranger man Djibril Diop Matar si la xarit jum ngoone mbeng yaay jël maa leen di daaneel. en tant que artiste est-ce que animateur sax euh, léegi animation bu njëkk ba ak bu tey bi. ñoom boo seetloo seen biir animé sax lu ëpp li ñuy teg musigu démb la kon ñu ngi nax nit ñi. Mhm. ñu ngi imposer loo xamante ni way ñu ba pare ñu ngi nax. <laughs> nañ wax dëgg. Mhm. tey boo seetloo ñoom musigu démb lañ ëpp lu ñuy teg. parce que kon léegi ñi ngi jéem a bokk nañ ci boy pour lekk seen benn weccit mais ñi ngi leen di jéem a corriger naan leen roy leen ci nii roy su dëggoonul la nga yor bàyyi ko voilà ba tey euh, ñi ngi si biir émission namu naa la tey nag gis ngeen sama ndaanaan bi Djibril Diop euh, koo xamante ne nii nag Sénégal dañ ko namoon waaye moom tamit nag moom moo gën a namm sénégalais yi alors euh, Djibril fi may ñëwaat ak yow à quand le retour Djibril Diop ak Prince Art non Djibril Diop bëgg naa ko man lima def sama moyenu bop la mhm. te gennu na ci ñaar mhm. te su mbass mi passé ma ngi tourner ma ngi ci tourner ñaari clip encore mhm. lay jagn ak ci buggee tourner ñu ko fecc kat mo ci dess kon alhamdullilah rabbil alamin ma ngi ñew te jógewu mu fi ah chaque jour bu ma xéetal tek ma mbara rajo tek ma ah waaw kon alhamdullilah rabbil alamin d'accord mais ndax mun nañ xaar sa retour ci fi nga xamantene moom moy Prince ar wala mais suñu ko bëggee ñoom moom moo ko teree neex. mais depuis absent boobu noonu ñoom yaa ngi leen di dégg yaa am yaa am nga eh, yaa ngi dégganteeg ñoom. sama morceau bu lu ma def bu mu kilibé ba pare maay demal sama bopp TFM le onze mars bi passé avant Covid bi di am bu bundur moo ma moo ma utal plateau ma def eh, yeewu leen. ak yeewu leen mhm. foofu lu ma fa soxla rek wax dëgg fa yàlla. su ma demee du ma jafe. ci kàttanu yàlla. d' accord alors euh, Djibril ñu nekk nag euh, si euh, période bu difficile si artistes yi difficile si ñëpp maanaam Covid 19 muy mbas mi nga xamante ne nii yàq na Sénégal dara doxatul ñëpp metti si côté yëpp naka nga ko dundee. waa man sant yàlla rek. mu hmm. mooy li ma doon wax rek yàlla yàlla yàlla yónneewul daa ñëwal boppam. Hmm. te dañuy gën a defaraat jikko yi mooy li ma la wax rek. suñu yéenantee am lépp. feebar bi kenn xamul nan la la duggee kenn xamul ban jàngoro la kenn xamul lu ko fi indi chaque jour yàlla mi ñuy mu ngi woon boppam. Mhm. dafa am góor bu baax nga fi nekkoon ñu naan ko sëñ Cheikh Tidiane si almaxtuum. Mhm. bu ma san toog danaan wax danaan wax sang leen réew mi. Mhm. ñun sénégalais yi ñuy toog laajuñu ko ban saabu la wala ban jàmpi la wala lan lan war a mën a sangañ eh, réew mi ba mu dem. dem léegi te bu ñu seetee ñun suñu suñu réew mi suñu kilifa diine yi rek kay dem. waaye léegi ñoom bu ñu jeexee demee ba jeex ñun ku ne tette dina teg ci yoonu siraatal mustaqim ba pare yéenante wuñ jàmm kon ñun dañoo war a mën a toog ku si nekk wéet delloo soit su suñu suñu xel ci suñu borom lu waay am ñu yéene kokoo fi nga nekk nii yàllaa la fi teg mhm. mais bu nit toog fële gis ñun yaa ngi fii mu lay jéem a humilier wala mu lay jéem a xaatim wala mu lay jéem a def lépp yàlla xaaratul yow man xiyaam de. waaw jooju jooju fois ñu gis feebar ba demee côté. <laughs> nga naan feebar la nii loolu àq suñu borom. moo ko daal moo ko topp. àq moo ko topp barke Seydina Muhammad. du dara àq la. àq la rek ak ñàkk yéen a yéen a jaam yi jàmm mais jàngoro dina ñëw ba dem borom xol yi seet doo leen gis mu naan leen. Mhm. parce que ñooñu société bi dañ leen a yaakaar. dañ leen yaakaar ñu ngi dimbali mhm. bi. ñooñu seen ñaq jàkk yaa ngi ciy lekk ñooñu seen ñaq ñëw di doole yaa ngi si ñoom ñu ngi gaari seen oto biir hôpital di xool ñu am problème ordonnance ñu koy faj mhm. te da fekk benn samba booy bu toog fële rek ndeysaan dis kuy nit lu baax nit kuy def lu baax mu critiqué ko nan ki lii kii lii kii lii kii laa nañ bàyyi dingat yàlla. xam naa point boobu mom ñor na la intéressé na trop. waaw ñuy def lu baax dañoo la war a ñaanal ñuy def lu baax. <laughs> man su ma ko mënoon dama koy def mais jotewu ma fa. Mhm. mais ñi ko mën di ko def nañ leen ñaanal ñu yokko ko. waaw alors euh, Djibril xamna on est à la fin de l'émission en tout cas ñun kontaan nañ bu baax baax si and ak yow euh, si namuna la. Mhm. muy concept bo xamanteni ni mom euh, ñew na man ko laaj ñi nga xamanteni ñom ñoy soppé yi. Mhm. alors lan moy ay projet pro lan moy projet jibril Diop. sama projet mooy li ma la wax rek way lu ma may disque d'or ci kattanu yàlla. na la ko yàlla may. ci kattanu suñu borom. way lu ma may disque d'or ci kattanu yàlla mooy sama objectif. sama projet mooy yu Ndour dem di teg lenge yi boole ma ci ñu war a téye musique mhm. loolu mooy suma projet. ci kattanu yàlla. ah macha allah alors euh, namm naa la tey nag ñu ñëwoon fi nga xamante ne nii moom mooy euh, golf. Euh, ñëw nag di remercier ki nga xamante ne moom moo ñu dalal muy Yacine Mboup si añ bu neex bi ak euh, ay xaritam yi nga xamante ne nii euh, ànd naa ak xam naa sama njóobeen bi sax moom lam sa dóor moo ko jàpp gis ngeen ko alors ñu ngi koy remercier bu baax a baax ndaxte nag accueil bi na trop say fan si club lañ ndeysaan ah, en tout cas ñu baax la ñu parce que dalal nañu accueil nañu Sidi Be ñoom ñëpp maa ngi di gërëm leuz ñeneen ak ñeneen ñoom jee ñoom Diaz ñoom ñëpp ñu leen di nuyu di leen gërëm ñuy ay nit ñu baax ay nit ñu am personnalité ay nit ñu diñ ci seen bopp waaw. en tout cas Wanema TV kontaan na si yow Djibril. Wanema TV tey ñëw nañ ci man balaa ndoxo laal suuf bii bay fendi yàlla nañ am seen yëfi bopp ci barke yonente bi. allahumma amiin yàlla jur kenn te kon jur ko te lu mu yor jaami la koy jox yàlla na leen sëqal te bañ leen a compal. mais mayel lay seetaan dara ñu xool. yëmbëri ngune rambaay ñaax dem ba may sa jaar mataar si la xari jom gone mbeng yaayi jal ma mataari mbay jaañ mbedu jomi kura jaañ kura jaañ mu mbey mu mbey ay te doole jur lee mu pay moo jur ko ñëpp njëme ay sëy kumba si di be mu sëriñ Babacar si Bakar rek dara man lu ma kumba caam sëriñ Babacar alaaji Maalik gi baayam Serigne Babacar ay bàyyi Serigne Mansour si Malick bu fa dindi da ngay siyaare Malick di ci maam soo fi ñang ngir mbayaa diini njaagu faama ma ca gaaya Serigne Babacar ay borom sakkara yàlla bi Serigne Babacar ay borom bone bu kaare bi inna ni kuntu min ahli ndari wa maskani biha la daar la ah macha allah macha allah. ah. voilà merci ami internautes yu Wanema TV c'était Djibril Diop dans Namonal alors gis ngeen maanaam li nga xamante ne ni waxtaane nañ ko fi te Yakarna naa tey it am na lu ngeen si jëlee yéen ni Namon Djibril Diop mu namoon leen Yakarna naa tey Djibril ñëw na wan leen boppam wàcc na boppam en tout cas ñi ngi koy souhaiter bon sens yoon bi nag euh, yaatu na tamit gudd na ñi ngi koy ñaanal suñu borom mi nga xamante ni moom man am katan. en tout cas yalla na dolel bat bi gëna wër. xamal ni équipe Wanema TV kontaan na yow ça a été un plaisir ñu accueillir la dans Namonal alors quant à moi je vous donne rendez-vous très prochainement ak euh, beneen daanaan si biir na mu naa la